ma ngi tuddu Khalifa Mbaye ndoy di gérer ben groupement bu tuddu takuli liguey bu nek Grup groupement bi ñuy gérer ben projet bu tuddu takku we tay dañ ñewon euh, foire bi di présenter suñu produit des produits euh, locaux manam jus ak sirop locaux yo xamne dañ koy défar ci produit yo xamne fi lañ koy jëlé Sénégal li melni Dakar li melni gingembre ak lu melni ni

ñu mën ko jël jox ko beneen dund ba nga xam ne dina mën a jëriñ nit si si vie bi. chambre de métier mooy fi indi ñun dañoo ñoo fekk lépp pare ñoo ñun dañoo ñoo installé suñuy bagage tàmbalee jaay looloo tax ma nit ñi bokkuñu ak nit ñi ñëwee condition bi ñëwee ñun suñ condition bi moom mën naa ne nice. macha allah amuñu benn jafe-jafe ndax comme ni ma la ko waxee sànq yombal nañu lépp franchement yombal nañu yëpp prise en charge bi accueil bi ak hébergement bi franchement ça a euh, mën na kontaan nañ ci trop ci loolu. kilifa moo ñu fi indi booy waa kosek

ndax sécurité bi si porte bi la doore bu ngay dugg si la doore di la suivre ba ba ngay egg si te loolu moo moo gën même mburu mi ngay change duñ koy xool ak suñuy doom ak vraiment daal affaire bi moom riche na neex na ren nag moom dafa rawati xam nga ku nekk ak li ngay bagage bi ngay jaay ak nu muy demee moo tax nee naa la kantaa ñun moom ñuy sant yàlla bu baax Sénégal yi daal dama leen di wax ñu jéem a takku liggéey ndax liggéey rek mooy dëgg toog di xaar ku la may baaxul jigéen ñi du ñu war a takku liggéey ndax jëkkër yi bañ ñu du ñu amul. ñu ñaan yàlla def ci sotti ci xéwal yu bëree bëri yàlla teg ñu ci bon santé yàlla teg ñu ci euh, njub ak teraanga bu baax ci année bi bu ñuy dugg nii di leen souhaiter tamit seen euh, waa chaîne Hann TV joyeuse euh, bonne et heureuse année du moins 2018. di kontaan ci seen liggéey ndax man waa Yaraax laa bien vrai que waa Jas la waa Dagg mais tamit waa Yaraax laa jërëjëf kontaan naa ci reportage bi merci beaucoup.